la <laughs> woon waa Ranki <laughs> patriote yi nan wut ay camion <laughs> nan wut ay camion ñu wër dëkk yi ñu ñu roñ pëne yi denc ko patriote yi yàlla xam na nan wut ay camion nan wut ay camion di wër dëkk bi di for pëne yi di dem di ko denc ji ndax waa APR dañoo bëgg a taal réew mi manifestation ci leen jëm nag ndax nee nan duñ dem élection ci condition yi jàpp leen ci nañ wut ay oto bu guddi jotee ñu wër ñu wër dëkk bi pune yëpp nu denc pune yi nan denc pune yi nan denc pune yi nan denc pune yi <laughs> man de xaw ma sëñ Mbay Jaxate wayoon walafal ba xaw ma sëñ Masaaga <laughs> adduna day werangi ko gars yi nañu wut ay camion nañu ay wut ay camion <laughs> for pune yi te denc ko <laughs> bala fee gaay bala fee gaay manifesté wu <laughs> barke alxuraanu karim Seydina Ousmane Sonko kenn mënu koo contrôler ku koy contrôler sa baay